njëg ya yaa ngi nelaw ndaxte da nga bëri bor boru farine bor lu nekk ñu bëri nekk ci ay jafe-jafe yooyu léegi nak lolu moy actuellement ni boulangerie sénégalaise moko ko mën a résumer si loolu loolu la jafe-jafe bobu moy sonn nañu xamatuñu fu ñu teg suñu tank lolu moy suñu situation actuellement li ko waral moy FNBS dafa nekk association bu responsable bu ngeen gisee depuis 1 an ñi ngi négocier

ndaxte pain bi produit social ñu nangul leen ko moo taxoon ñu def proposition yu beesoon ci affaire format supérieur pour permettre boulanger bi mën a yeewu tuuti am dara moo tax ñu defoon conseil régionaux yi mais li ñu dénoncer surtout conseil régional boo xam ne gouverneur yoo ko doon woote si une semaine depuis ñeenti weer am na sax gouverneur bu wooteegul mooy Ziguinchor pour wane rek euh, ñun dañu dañu xaw a jaaxle léegi nag yooyu mooy yoo xam ne bu ñu ko deful rek dana indi ay jafé jafé foofu lañ demandé solennellement euh président Macky Sall sous les signé na décret ba pare pour mu jappé askan bi ni boulanger ni bis bu signé décret bi dana wañi dana wañi euh poids bu bari si boulanger yi sen liguey donc dama doon wax sank ni si si ki wax solof que ni euh jafé jafé boulangerie bu yok yok courant bi ñëwee moy wane ni dañuy déwé bu courant bi yoké mom jappalé ni rek boulanger yi moom gën nañu déti ndax nous avons comme 10 d'augmentation ko 000. non non non c'est autre chose dañuy wax rek on fait fay ay 700000 000. Si dem ba 900000 000, doon fay 300000 nga dem ba nga lu combat nous ñoo nous di ñun combat la daf ñu fekk avons fait ak combat bobu parce que ñun bëgg actuellement ni rek moy naka lañuy fexé ba courant donc képp kuy mëne combat duñu ko mën duñu ay politiciens duñu duñu duñu amuñu ay contre ñu kenn waaye li ñu bëgg mooy ñun askan bi ak boulanger yi moom moo ñu intéressé yokk courant bi moom consommateurs yi dafa war nekk seen combat ngeen taxaw ni bañ a yokk courant bi bu yokkee ñun dana metti si ñun mais dana metti si yéen aussi voilà. non dama ne la yokk mburu ñun dañ nekk lu ñuy wax régime homologation mënuñu ko fësal mënuñu ko def moo tax ñu ni dañuy demander sax ni la ñu waxoon août 2019 nekkatul ndaxte 1 gramme 95 amatul sax faf léegi dañ ni 1 gramme moo am ndaxte yokk courant bi yokk salaire yi yokk yi salaire yokk na donc loolu yëpp bu si yokkaatee ñun dañoo jaaxle donc nag yokk-yokk boobu moo tax ñu mën a ni courant bi loolu lañ si mën a wax liñ mën a wax mooy fan yi ñu jëm fan yi ñu jëm ah la ñu boulanger yi tënk mooy dana am lu rëy lu ñu nar a def ah buñ ko waxee du neex nañ jàpp ni bu dee la ñuy ñaan ñun mi son son sonn nañu boulanger yi jàpp nañ ni ah ñu tok di seetaan parce que ku nekk comment am nañ suñu mbokk yo xamni dañu bëgg yé yee dañ ñuy yee ñu and ak ñom xex combat bi